daara yi maître yi am na ay jeunes yu bari yu am bac arabe. Hmm. toog di sommet ñooñu bu ñu leen jëloon dugal leen ci daara yi mun na am am lu changé. ñu dugal ko si suñu système éducatif. Aminata Diallo dinañ dikk euh, gën a xóotal loolu oustaz bu may tàmbal si yow il faut tamit ñu expliquer contexte bi ne on ne juge pas. mais dafa am euh, fee boo xam ni tamit dafa dafa yëngal xol yi. Mm-hmm. ni ma wax c'est en instruction euh, du du du du donc ci dossier boobu la ñuy wax mais en général c'est récurrent oustaz yi la ñuy wax bi ci mujj it choqué mooy ci wàllu football bi la feeñ. Mm-hmm. ay xale yoo xam ni ñu ngi leen doon. <laughs> benn centre de formation benn club am ndeke koo xam ni mi ngi fa nekk ci li ñu jàppagum. Mm-hmm. ci enquête bi di leen saay saaye nan la ñu war a def ba nga xam ni ustaas yi ñuy tudd souvent ci mbir yooyu ñu indi ci saafara. jërëjëf mais comme da nga ma wooyee ustaas ci plateau bi. Mhm. ma ne leen ko ñaan yéen ñëpp. Mhm. Euh, ma am ñaari kàddu rek yu moo jooyal ci kilifa diine yi daal. ay ca bismillah. voilà ak am ñu ma jaale rek nga baal ma pour une minute. Mhm. donc maa ngi nuyu kilifa diine yëpp. parce que TFM ñu bokk seetaan mm-hmm. su ma toogee fii nga di ma oustaz kon ku nekk ngi ubbi sa nopp di déglu ba xam fan laay jaar mm-hmm. bi ci des euh, mooy ñoo ngi massawu tariqatul qadiriya ku ñuy wax Cheikh Al Khalifa borom gëlëm gi mm-hmm. euh, démb lañ ko denc Nijaat macha allah bu doon war gëleen gi dem dëgg la euh, bu jaamal aussi mhm. dem na yàlla ko yàlla na leen yàlla yokk leer waaw bi ñu koy jaal sëriñ Maodo Mamoun mhm. Mbacké mhm. donc di kilifa dina yëpp voilà euh, daf baax léegi ñu ñëw ci parce que affaire bi baat bi da ko tudd dañ ko demee affaire pédophilie la pédophilie bon ñun ñu jàng ko mu nekk al i'tidaad euh, al jinsiya lil atfal hmm. c'est-à-dire mooy la pédophilie hmm. c'est-à-dire c'est la traduction littérale du mot hmm. euh, loolu mu nekk fait de société bu palpable bu ñëpp xam ni am na mooy euh, zahira ijtimaaiya mooy loo xamante ni lii liñ teg bët la léegi mu am benn tomb mooy al asbaab li koy waral waaye benn bi mooy al ilaaj mooy li nga xamante ni moo koy saafara waa léegi xam nga jàngalekat jàngalekat d'accord daara yi la ñu wax quoi mais jàngalekat en général moom il n'a pas droit à mhm. comme ni docteur di faje warul warul def erreur mhm. bàyyil xel li ma bu baax mhm. dañu wax ni euh, man fataha madrasan aghlaqa Eh, eh, eh, laa ilaha ak hmm. sijnan axlaqa sijnan mhm. ku ubbi école mhm. tëj nga prison mhm. man fataxa madrasan axlaqa sijnan ku ubbi école rek tëj nga prison waa léegi pourquoi ñu ubbi ay école di jàngale ba noppi prison bi prison yi tey jii di fees ak ñoo xamante ni ñooy ñuy jàngale gën a bëri ba pare aussi mu am benn affaire bu làqu ci ginnaaw bu kenn mënul wax toujours dañ leen di jàpp di leen def li ñu leen di def mais affaire bi di gën a yokk mm-hmm. est-ce que moi je pose la question de savoir ba léegi dafa nekk médecin boobu mm-hmm. lu tax mais est-ce que loolu amul lu nekk ci seen ginnaaw bref bi ci des mooy euh, am na ci yoo xam ne loo bëgg junj foofu dañu feebar. pour yow feebar la non maa ngi ñëw maa ngi ñëw. maa ngi ñëw mm. boo mbayee ma développé rek maa ngi mm. non loolu moom feebar la moom. Mm. feebar mi ngi ci. mais dama ni est-ce que amul lu leen koy def loo lu dul feebar. dañu nekk ci àddina boo xamante ni bi on aura vu du n'importe quoi mm. am na ñuy jëndee ay affaire nekk góor jigéen am na ñuy jëndee affaire naan sàngara ngeen baal ma ci mm. tàmm tàmm ki mm. am ñuy jëndee ay affaire jëndee ay affaire pour rien que pour am un bien-être social mm-hmm. yooyu dafay am donc du ci duut baaraam ni moom la bay dama ne est-ce que waaw feebar bi wéyee bi ci des mooy tey am na ci yoo xamante ni euh, honorable am na ci loo xamante ni jar na bàyyi xel je prends un exemple am na bu benn femme boo xam ni dafa daan def timis bu jot wala avant timis mu yónni doomam bu jigéen ci benn commerçant commerçant bi di ko di ko di ko di ko dimbali dépense hmm. ndekete femme bii def loolu dafa lal plan def na ko def ko def ba un jour rek benn timis rek mu yuuxu tàccu de connivence avec sa sa petite mu ne waa ji dafa doon def ay attouchement ci xale bi nangam nangam tal di koy indi foofu benn tentamar bu rëy mais kooku tëdd na ci deux ans et pourtant waa ji waat na wàcc na te effectivement il n'a absolument rien fait yaa ngi dégg. Mm-hmm. donc mu nekk affaire boo xamante ne bii bu lëndëm la am ci aussi ñoo xamante ni fait bi am na c'est palpable mais am ñoo xam ne dañ naan dañ koy nëpp nëppal. Mm-hmm. duñ ko génne. Mm-hmm. pourquoi pourquoi. tey par exemple xale bu jigéen euh, bu toll ci huit ans yaa ngi dégg wala magum jëmm bu àgg ci xale bu góor bu am huit ans dëkk fi nga dëkk. le plus souvent bari na ci nag yi feeñ ngeen xam mais le plus souvent daf ci am ñoo xamante ni il préfère xoolal def affaire xaalis wa illaa sax bu dul affaire xaalis ñu jéem ko nëpp pourquoi parce que pour bañ a yàqal xale bi avenir am pour su màggee ci biir kër gi. wala ci koñ bi. wala ci penc bi. pour nëbbal ko ko yow kilifa gi aussi. pour ñu jàppale la ci loolu nëbbal la ko mais cest à il faut les dénoncer. man d'accord ma ci ñuy nëpp nëppal. mais affaire bi moom dafa am. Mm-hmm. dafa am waaw mooy pédophilie moom am na. Mm-hmm. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. waaw mais foog nga waaw mais Oustaz Oustaz non non non xam nga Bouba ci émission bi xam nga Bouba na waxuñu ñu oram xam nga Bouba dama koy seetaan mais dafa am benn affaire bu ma neex dagg bu dagg bu ma la de parce wax léegi dagg ma après ma dellu may ma si justement may ma dem ci honorable honorable Bouba yaay wax bu ma dagg boo xam ni waruñu ci laxatu mais nëpp nëppal bi très souvent mooy li nga xam ni mooy gàllankoor ñu faj ko nëpp nëppal bi donc ñëpp a ci société bi ñëpp a ci am responsabilité. responsabilité bi xam nga jamono bi ñun ñëpp ñu ngi gis xam nga boo génnee fii léegi léegi boo rombee maire yooyu di jaay gerte. da ngay gis ñu ànd ak seen i njaboot. Mm. da ngay gis xale yi di traîner bu ñu oto rombee wala kenn romb rek ñu jàpp la xam nga noonu la ñuy jàngee yalwaan mais ñooñu chaque fois man daf may choqué comment se yaa ngi jaay ci mbedd mi yore sa gerte ba pare sa doom bu jigéen bu ndaw bu am deux. mun na la mun na la rëcc kenn def ci dara. kaa mm. yooyu moo fi nekk maanaam la famille la société ci boppam la famille la cellule familiale problème bi foofu la ñun ñii la ñun jigéen ñi léegi ñun dañuy génn di liggéey. suñu jëkkër génn di liggéey xam nga ñun suñu yaay yi daawuñu dem liggéey. Mm. dañuy toog ci kër gi yar xale yi. léegi ñun il faut ñu am dispositif bu bu tax ne. dinañ mën a aaraale suñu njaboot mais bu fekkee ne boo génnee nga yóbbaale xale yi te doo ci veillé même boo duggee ci marché yi marché kastoor ak yooyu da ngay gis jaaykat yëpp ñu ngi ànd ak seen ay doom yu ndaw xale yi di traîner ci taabal yi hmm. ñooñu bu ñu leen violé laay deer nañu waxante dëgg nag ñun la yooyu foofu la commencé déjà. bu ñu passé foofu am na responsabilité boo xam ne ni mooy éducation de base mais école bi parce que am na ñoo xam ne ci école yi lañ leen di violer. am na ñoo xam ne ni seen ay morom ñoo leen di ëmbal. am na ñoo xam ne yi boo demee au sud la chez nous ay Kolda ay xale yu ndaw yu am 12 ans yu am 11 ay maîtres di leen ëmbal ci biir école bi parce que colin bi nañu waxante dëgg. ba léegi ñu ngi ci biir kër gi parce que ñun dañuy bàyyi suñu ay doom sol lu leen neex sol lu gàtt a gàtt génn bu ñu demee kenn fopp ko def ci dara noo koy xamee. Mhm. parfois kooku da koy nax ne ko boo ko waxee dama lay rey xale bi du wax. léegi li ñu gën a jàppale mooy préscolaire bi parce que xale yi léegi ci préscolaire bi comme aux États-Unis xam nga dañ lay wax nine one one moom ngay njëkk a xam mais léegi ci préscolaire bi dañ lay wax lii c'est interdit man damay dégg samay doom naan c'est interdit que mu laal sa sa pooj wala dara. Mm. donc ñu ngi leen koy jàngal ci préscolaire mais doyul il faut que cellule familiale bi ñun jigéen ñi ak ñun parent yi ñu xoolaat suñu bopp état aussi. xoolaat boppam les lois ne sont pas votées pour ñu dugal ko ci ay tiroir dañ ko voté pour appliquer ko. Mm. criminalisation du viol am na. mais xale yi ñuy assassiné. mais loolu nañ ci wax léegi nag. parce que c'est inadmissible. parce que xale yi ngay rey yaa ngi rey société bi. xale bu jigéen boo ci rey yaa ngi rey ñaata yaay. ëllëg ñaata femme ñaata futur ministre ñaata futur président de la république yaa ngi leen di rey kon yaa ngi rey suñu base de société kon loolu aussi état war na ci xoolaat boppam mais ñun famille bi ba pare mm. ba pare nag liñ daan yare xam nga yar dafa am base yar am na diine am na lépp maanaam ñun dañuy judd jàng alxuraan ñun loolu loolu mooy suñu chance mooy na ci alxuraan bi sax di nga jàng lax dariw ñu wax la naka ngay comporté woo ak yooyu ak diine lan la bëgg ak lan la bañ loolu yëpp amatuñu temps bi parce que ku nekk yaa ngi uti yaay day uti papa uti xale yi amatuñu base boobu kon éducation de base bi nañ ci wax après nag ñu door a wax état mu appliquer les lois ba pare nag ñooñu noonu ñuy jàpp. Mm-hmm. bëgg koo ndëpp ndëppal wala nit ñi ku nekk di def ay yu ay mouvement de foule. Mm-hmm. ne non dañuy protéger diw parce que diw la. Mm-hmm. nañu waxante dëgg te dee. gis nga fii ku nekk les animaux sont parmi nous. fii les animaux sont parmi nous mun na nekk jigéen mun na nekk góor kon ak ku mu munta nekk bu nekkoon ministre mu def ko war nañu am sañ-sañu taxaw xam ne ni kii war nañu servir d'exemple pour ñu sévir mm. waaye bu ñu defee ay mobilisation ne diw parce que dañu bëgg a rey diine bi parce que dañu bëgg a rey loolu mooy problème bi léegi nag loolu mooy problème du question rey diine mm. am na ñoo xam ne ni ay nitu diine nañ ma baal ñoo xam ne ni duñu nit dañuy utiliser diine bi pour mm. def leneen